wàcc fii ci suuf gis ay doomu Sénégal ay doomu réew mi ñoo xam ne wax dëgg yàlla nekk bi nekki nekk nekkin bi rafetul jaaduwul biñ ne ma depuis plus de dix jours ñi ngi fanaan ci bâche yi fii la ñuy toggee et ça lance un appel solennel au ministre déjà de du pétrole des énergies et des mines mu ñëw fii au niveau de cette zone la ci Ndomor ci Ngomen zone meewaan lay wax meroon sama meewaan pour rencontrer directement population yi le premier ministre également monsieur Ousmane Sonko le président de la République également monsieur Bassirou Diomaye Faye war nañ enquérir situation parce que entreprise boo xam ne dafay dugal ay milliards ci biir dëkk bi ak jamono joo boo xam ne dañu entreprise bi yoroon na ay milliards état du Sénégal mënoo yow dëkk di yoral état xaalis dëkk di yoral état popula di yoral euh, population euh, xaalis population bi.